place Soweto Cheikh Omar Sy lii dafa mel dañu yaakaaroon vraiment dina xewi quand même c'est-à-dire voter loi ba ci tëju bunkeriser tëj pour parce que voter loi sax nit ñi war nañu mën a ñëw fekkee seetaan defe naa ni séance publique la mais bu ñu demee ba di tëju nii sa lan moo tax ñu nekk fii ba léegi Cheikh Omar d'abord damay damay euh, damay damay damay féliciter maître parce que c'est assez honnête de nii ne man démb laa ko yëg bu hmm. ñu invité ma ça dire que moom moo nekk juriste lii muy liggéeyam moom ci boppam n'était pas au courant de set loi là. Mhm. ça veut dire que boo xoolee. moom gëstoo bay mu xam ni li ñuy wate kat mu ngi fi woon déjà. voilà moom noonu man la dayoom ci liggéeyam ak fi mu jaar ak Sénégal ni ñu ko xamee bu taxawee ne na ne lii démb laa ko yëg kon jàppal Sénégalais bi nga xam ne comprendre ci dara. Mhm. ak interprétation politique yi nga ko mën a jox yan conséquences am ci bopp ak li ñuy wax ci fake news ak li ñu wax ci événement yoo xam ne mën na yàq xelu nit ci loo xam ne lii dëgg la gis nañ ko ci pandémie bi ak vaccin yi mm-hmm. ndax xam bu nekkee politique moo dugg ci ci li nga xam ne mën na indi problème c'est un problème c'est la même chose avec li nga wax tey bu ñuy voté projet de loi boo xam ne normalement pour askan bi la pour projet benn policier waru woon sax wër assemblée nationale on la sénégalais sax mënoon nañ dugg ci biir assemblée toog déglu parce que dañuy xam ne ne lii bañ koy jël pour ñun la mais jël un dispositif aussi l'Assemblée nationale mi nga xam ne mooy représenter le peuple sécuriser ko sécuriser ville bi. waaw moom laa lay wax xam nga finalement duñu xam lu jiitu. waaw moom laa lay expliquer kon contexte boobu moo lay woon ne la waa kon est en train de prendre n'est pas prise sereinement dans un contexte boo xam ne sénégalais yi mën nañu wax de manière courtoise sur ça pour ñu mën ci génne solution ne ah kon nañu wàññi wala nañu la ñu amender lii wala nañu changé lii pour ñu mën a dalal xelu sénégalais yi même tey bu ñuy féete 23 juin. mais Sénégal warul toll dix ans après du fait de 23 juin ça n'a pas de sens ça veut dire a échoué parce que 23 juin devait être un tournant dix ans après ñu xool ko ñu ne jóge nañu ci point A dem nañu ci point Z mais dafa mel ni dañu waroon dem ci point Z mais dañu delluwaat point A kii ne la man maa ko moom fekkee naa ko M23 la kii ne la man maa ko moom m la léegi man tamit pour feete pour wax ne ak ah, yeex fii ba tey mu ngi des ñu ñu xeex ko damay tooñu sama waa M23 di tooñu waa Benno Yaakaar man leen ba ngeen nangoo dem ànd ak askan bi dem manifester pour ne ne da ngeen a bokk ci 23 juin kon nag ngeen ne kat président de la république bu ñu toogee waxtaanam moom mu war a mën a déclarer ne moom du def troisième mandat parce que jàmm la parce que 23 juin lan la woon ticket bi la woon. car bloc 25 pour cent yi. ak layam layam yi gars di wax lay pour est-ce que dina président de Abdoulaye Wade dafa bëgg troisième mandat. yu yëpp ci loolu ba damay wax maître li ñuy coow ci droit de l'expression nii sama on a droit droit de liberté d'expression li ñuy coow sur la démocratie qu'est-ce que la démocratie nous a apporté il faut qu'on se pose la question moi mon combat c'est la dignité économique que chaque Sénégalais au moins quelque chose dans sa poche war a mën a dem doxi soxlam te du génn ci mbedd bi di xeex ak di xuloo boo duggee taxi dafa énervé boo duggee ci car bi dañu énervé bu ñu duggee fenn dañu énervé les gens sont tellement stressés ci ay loo xam ne tey étincelle boo leen rek mu tàkk donc c'est une faillite des politiques parce que les politiques on ont pour à tendance ñu war a mën a éduquer nit ñi wala mën a yóbbu ci kanam tu prends aujourd'hui la loi sur le terrorisme telle qu'elle est définie qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux États-Unis avec Guantanamo Bay et pourtant les États-Unis on les a attaqués frontalement monde yëpp leen gis ñu gis ñuy détruire les deux tours ñu jël ay nit ñoo xam ne nee nañu nit ñi ay terroristes lañ ñu leen dans une zone de non àdduna bi yëpp di xeex ne ne li ngeen def nii du yoon ñoom ñu ne suñu yoon la parce que ñi ay terroriste lañu li ñu def dañu attaqué kii mais pourtant malgré ça les États-Unis n'ont pas changé leur arsenal juridique interne par rapport à les manifestations ak yooyu pour mun ko qualifier d'acte terroriste boo demee France il y a eu les gilets jaunes les gilets jaunes am na ay casse est-ce que la France a changé son dispositif interne pour considérer ces actes qui étaient graves dem ba ay Touré euh, kii nu Touré fel beeg yooyu yëpp def ay saccage yu métti mhm. mais dañ leen condamné su des délits mais yóbbu ko ñu ko sur acte terroriste et pourtant dafa metti woon ci ñoom lu laay wax c'est-à-dire que aujourd'hui mhm. bu nekk ñun ñëpp ay doomu réew mi lañu d'accord nañu ne am na ay actes dans les réseaux sociaux à condamner d'accord nañu ne war waruma mën a toog parce que je suis pas d'accord avec maître Boubacar Ousmane Seye may joxoñ këram dina xale yi dem leen këram pour ñu dóor ko fii la ñu toog télé yi TFM ñu ñu ñu désigné ko ba ay nerf bi ne dañ fiy ñëw. Hmm. donc loolu li ñu war a toogaat waxtaan suñu biir ne ne société bi dafa am problème un problème fondamental te politique yi ñoo ko jiite c'est une faillite. léegi nañu xoolaat nu ñu mën a toogaat waxtaan ak suñu gune yi waxtaan ak waxtaan ak suñu bopp même sur le cas des nervis est-ce que les nervis maintenant on va les qualifier de terroristes <laughs> maître les nervis on va les qualifier de quoi. ah kon xam nga kon waxal président de la république kon. boo demee comme boo gisee président de la république kon kon na wax ne président de la république. non kon léegi bu demee di bu mu accompagner ay nervis parce que ne sont pas ceux qui ont accompagné le président. Ah, ceux mais ceux les gens qui ah, Voilà. Euh, non, non, ceux attends, qui ont tué, ceux qui ont de deux choses à différentes ah, mais je, tourner, ah, Parce que le débat sur les voilà. mais vous devez le poser depuis les événements de mars. mais c'est pourquoi le poser avec la pépite vous savez que le président la République n'a pas de nervi waaw mais maître il est protégé officiellement par la sécurité publique non pas ah, de la même manière quand même d'ailleurs je me rappelle très bien je me qui tourne les présidents le président ne se déplace pas avec des nervis non lui il a sa sécurité ceux qui se déplacent avec les nervis c'est les hommes politiques on est de l'opposition comme du pouvoir. Mais, maître, mais les véritables nervis, a mars. ñoo doon taal Auchan ñoo doon taal këri nit ñi ñooy rey nit ñi. c'est ça les véritables nervis dañu waxante dëgg. xam nga Sénégal aussi. à la vérité maître. comment maître. Sénégal dañu waxante dëgg. <laughs> Sénégal ku ci nekk da far. Mhm. loolu moo yàq réew mi. li nga wax c'est vrai mun nañ am des points de consensus sur la maladie la la pandémie. Comment faire pour relancer l'économie de notre Même pays pour lutter contre Comment faire pour sauvegarder un républicain mais normalement bu fekkee ni ñuy wax yëpp réew mi rek moo leen soxal te su seen bopp moo leen soxal mais mun nañ toog waxtaane ko ne président bi yow lañ fal pour cinq ans ñu ne la jàppale pour lii ndax kooku mooy suñ survie aujourd'hui c'est le monde entier qui a des ñun dans notre sous-région là ñëpp xam nañ la xew mais écoute il faut qu'on renforce la sécurité des personnes et des biens kooku war na am consensus sur ce plan là. est-ce nekk ñu di fooye baat yoo xam ne aussi. bu ñu ko banaliser ñu gis président bu ñu ko banaliser président buy def tournée c'est un homme politique buy def tournée ñu teeru ko bu président jógee nit ñi jóg mais ñuy def débat ndax c'est une tournée politique ou bien c'est une tournée politique xam nga loolu dina ko débat. non mais maître. xam maître maître xaaral ma yokk ci benn la. wax ay nerf léegi. journée président bi yëpp. ñu bëgg ko réduire à des nervis. non non non non c'est vrai parce que on a dit nervi nervi man gisuma nervi. que j'ai vu au bas de mars. maître na les hommes politiques les hommes politiques de l'opposition que du pouvoir comme du pouvoir ils se déplacent avec des bras armés. c'est pas c'est pas maintenant mm. gros bras c'est pas tout le monde le sait. parce que c'est pour assurer leur sécurité. maintenant il faut il faut légiférer sur cette question soit on supprime Il y, a, il y a des autorités qui ont des milices ici. On supprime les ou bien on les légalise. lu légal moom jarul loolu moom jarul homme politique su may dem ci meeting. damay ut ñu ma ah, mais du loolu moo ñuy delloo si waat. mais c'est pas un débat est-ce que du loolu. loo xam ne légalul. mu nekk fi justice doxu ci. parce que aussi bu ñu gisee parce que nervi yi ngay wax au mois de mars je suis désolé on en a assez parlé. tournée économique bu président de la République wax nañu ci tournée économique vraiment acteurs yeeg ñi moom li muy def ak li muy def yëpp wax nañ ko waaye nag mënuñoo wax ci loolu te bañ a wax ci leneen li aussi parce que yow balaa ngaa tal les bienfaits wala les retombées économique du président la daf fekk violence bi nga xam ne gis nañu ko dalul sa kaw maître c'est ça donc foog ñu waxtaanee ko donc on ne peut pas occulter problème réel voilà dans notre sous-région et dans notre pays. Voilà, donc on ne peut pas au mois de mars, on en a parlé et d'ailleurs ça tombe bien parce que ce soir-là, débat bi mu doon évoqué sànq ak Pape Mao Diouf fi lañ ko amee woon ba on lui a la question de ñii nga xam ne gis nañu leen ñu nekk ci oto te manifestement vidéo yi circulé on les voit rentrer dans la permanence du de l'APR ci vidéo yoo xam ne xëy na fake la wala leneen mu ne ñoom sax seen intérêt la pour ñu leeral ko. parce que ñoom la ñu tuumaal. loolu loolu la ñuy xaar maître mais loolu ba léegi kenn gisu ko ci épisode bu mujj bi. waxuñu ni président la rek moo jël ay yi loolu kenn xalaatu ko. waxuñu ni aussi moo cautionné ay nervi mais nag gis nañu ay nit yoo xam ne duñ mën a daaw de miin ndax ñu ay euh, goldeer lañ ñoo xam ne mel nañ ni ñu war a mel di duma ay nit te xam nañu. ñi ñu féete parce que ñi doon yuuxoo ñoom la doon duma di leen fekk ci kër di leen jëri mais loolu warul am ci yoon boo xam dëkk boo xam ne quand même loi moo fay dox loi ba li ñuy voté nii mais loolu moo tax ñu tiit aussi ci interprétation bi nit bu ko nit dóoree ba gàñ koy am na yoon waaw mais léegi loolu loolu mais maître li fi nekk yow kooku ngay nervé nga dul nervi kenn amul droit di dóor nit comme ça loolu moo tax bu fekkee li ñuy wax dëgg la nañ jàpp ñi nga xam ne ñoo ñoo doon dóore mais yóbbu leen tribunal yow gisoo ni événement wu marché yi ñuy jàpp dóor leen mu jiwul fenn ah bul wax loolu nag warul ah, mujj fenn moom laa doon wax léegi parce que nit ñi nañu bàyyi di def une certaine pression sur la justice surtout ceux qui luttent pour l'indépendance de la justice je ne peux comprendre ñu jàpp ay nit atteeguñu leen doon leen mandat de dépôt ngeen def marche def pression sur la cette pression la justice laa wax dañ ko war a ba nañ bàyyi justice di def liggéeyam mais taxaw ne nañ bàyyi Ablaye ah waruñ ko jàpp ko personne n'est au-dessus de la loi mais ñi nekk ci combat politique ñooñu mënuñu leen a bañal waaw combat politique boobu nag partisan boobu laa wax moom la ñu war a moytu jiital réew mi parce que fii ku fi waxtu yee partisan c'est inadmissible inadmissible il faut ñu jiital réew mi un peu dafa mel ne li ñu porte des œillères je demande à l'opposition d'être plus sereine de revoir la loi le projet de loi qui est déjà voté mais et puis d'accepter quand même de dialoguer avec avec, le pouvoir ñu ut ay solution ay consensus comme ni mu ko waxee pour pour pour réew à l'état actuel le projet de loi est en vote tu peux pas dialoguer ci loo xam c'est déjà presque voté c'est voté ah cher mais c'est le recours qui va après on peut aller vers le recours mais mais recours bi xam